jër journaliste yi di leen gëdd ak a yuuxu encore une fois. fukki fan ak juróom benn ci weeru août ci atum 2021 bi ñu weesoo ci la ministère de la santé dal di organiser woon benn concours ngir rek dal di recruter 40 agents infirmiers ak sages-femmes ci loolu ñi nga xam ne ñoo réussir woon boobu concours ngir def ñaari at formation ci anesthésie ak réanimation mu mel ni si ay conditions yu metti ba jéggi dayoo la ñuy dund. ba léegi def na at ak genn wàll. mais du lenn loo xam ne jàppale nañu ci du bu ñuy déplacé wu du frais de déplacement du frais de stage du lenn loo xam ni am nan ko. bu ñu sukkandikoo ci seen salaire bu néew loolu collectif bi nga xam ni moo ëmb étudiants yi def master ci anesthésie ak réanimation ñoo ngi laaj ñu jox leen seen ak ak seen yelleef ba mu mat sëkk. gis nañ fi ñoo xam ne tey ci dëkk bi ay 500 millions ay ñoo xam ne chaque weer 50 te daanaka li def ci santé bi ñun defuñu lu gën li ñu def. su fekkee jëluñu ay mesures. ngir daal di respecter seen àq ak seen yelleef. Abdou Karim Ndiaye ak ay naataam ngoom. ñoo ngi alerté waaye tamit ñoo ngi menacé. nu laaj nañ ñu ko jox buñ ko joxul nag fi yàgg weer fin du mois juillet su noo gisul. den dellu ca lan nekkoon. étudiants yi nga xam ne ñoo nekk di def master anesthésie ak réanimation boobu nga xam ni moo nekkee foofee ca Saint-Louis ginnaaw bi ñu waxee situation yi nga xam ni métti na ba jeggi dayo yi ñuy dund police moo leen daal di jël daal di leen yóbbu sous prétexte que ni ñoom amuñu benn yoon autorisation wax li nga xam ni moo leen métti ginnaaw bi ñu defee ñaari ati formation ci loolu ñu bokk ko ak journaliste yi ndax kii di Aïssatou Diène nekk foofee ca presse moom lañ daal di jël daal di koy yóbbu moom mu nekk loo xam ne presse bi yëpp moom koy naxarlu di ko ñaawlu police yi daal di koy tekk ci ndoddu journaliste